bismillahi irrahmani irrahim subhanaka laa ilma lana illa maa allamtana innaka anta al alimul hakim mbokk yi ni teewlu ci silatu rahim askanu noo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell ci nuyoo yi te mooy asalaamualeykum wa rahmatullah noo dikkaate yéen ci seen jataay bii di jàng nu ci jàng téere bii di laxdar yu tey di sunu bind ñeent fukk ba tey noo ngi ci uh, bunt bi mujj ci téere bi muy baabun fi bi bunt bi nga xam ne moo jàngal boo jéemee ci biir julli gi noo koy defaree sunu bindu tey tàmbalee ci waman salla bi xariirin aw dahabin aw saraqa fi salaati aw nadara muharraman fa huwa aasin wa salaatuhu saxiixa waman salla ku julli bi xariirin ci sooy aw dahabin wala wurus aw saraqa wala mu sàcc fi salaati ci biir julli aw nazara wala mu xool muharraman lu ñu tere tere ak xaraamal fa huwa moom aasin aji mooy la wa salaatuhu julleem ga saxiixatun aji wér la mu ne képp koo xam ne dangay julli sol yërëb sooy bu dee góor walla mu takk jaarab or walla takkaayu or bu dee góor walla mu sàcc ca biir julli ga walla mu xool loo xam ne dañ koo xaraamal nee na kooku ab àtte mooy mooy na yàlla waaye nag ak julleem wér na maanaam def na bàkkaar waaye nag julli ga moom yàquwul wér na wa man xalita fi l qiraati bi kalimatin min gayri al qurani sajada bacda alsalaam wa in kaanat min al qurani fala sujuda alayhi illa an yataxayara allafsu aw yafsuda almaana fa yasjudu bacda alsalaam wa man xalita ku jaxase fi l qiraati ca jàng ya bi kalimatin ci baat min gayri qurani budul alquran sajada sujjóot na baada salaami ginnaaw sëlmal ba wa in kaanat ndéem nekk na min alquraani di bokk ci alquran fala sujjóota déet sujjóot alayhi di ko war illaa an yataxayara lu dul ne dafa soppi al lafsu baat ba aw yafsuda walla muy yàq al maana maanaa ba fa yasjuda dana sujjóot baada salaami ginnaaw sëlmal ba nee na képp koo xam ne dangay julli ci biir la ngay jàng nga jaxase sa baat boo xam ne bokkul ci alquran nee na kon danga dolli banda salaam ngay sujjóot bu fekkee nag baat ba nga jaxase ca biir jàng ya ci alquran la bokk kon bu boobaa sujjóot du la ca war lu dul ne nag dafa soppi baat ba maanaam dafa yàq baat ba walla sax mu soppi maanaa ba kon bu boobaa day sujjóot baada salaam wa man naasa fi salaati fala sujuuda alayhi wa in saqula nawmuhu aada salaata wal wudua wa man naasa ku ngëmbeen fi salaati ci biir julli fala sujooda dee sujood alayhi di ko war wa in saqula ndéem diis na naw mu hoo nelawam ya da baamu na asalaata julli ga wal wudoo ak njàpp ma képp koo xam ne da ngay julli ngëmmeen dab la ci biir julli gi maanaam nga ngëmmeen xaw a bët nelaw yu woyof nee bu boobaa sujjóot du la ca war dara dara du la ca war ndax nelaw ya dafa woyof waaye nag bu fekkee nag nelaw yu diis la nga xam ne daal euh, bu doon ma imaam raw na ko sax te yëgu ko ndax nelaw ya kon bu boobaa day baamu julli ga ak njàppuma yépp wa aniinul maridi muxtafarun wa tanaxnuxu lil darurati muxtafarun wa lil ifhaami munkarun wala tabtulu salaatu bi wa aniinul di onki aji tawat muxtafarun lu ñu jéggale la nee na ku feebar aw metit jàpp ko muy julli di wonku wonku yooyee muy def jéggal nañ ko ko wattanax nuxu xaddamtiku li darurati ngir lor muxtafarun lu ñu jéggale la walil ifhaami ñeel ak déggal nag munkarun lu ñu sib la wala tabatul te du yàq te du yàq asalaatu julliga bi ci moom wala tabatul te du yàqoo asalaatu julliga bi ci moom nee na kuy julli xaddamtiku ngir lor xay na day jàng ba yàgg ak buleem takk nga xam ne faaw bu xat du mën a wax kon bu boobaa bu xat jéggal nañ ko ko dara du ko ca war bu fekkee na xat damtiku ga mu def ak déggal la ci jublu maanaam bëgg ñu xam ne moom kat mi ngi ci julli xam ne day julli ba boobaa def na lu ñu sib waaye nag julli ga moom wér na julli ga du yàqu wa man naadaahu axadun fa qaala lahu subhaanallahi kuriha wa saxat salaatu wa man naadaahu koo xam ne woo na ko wa man naadaahu koo xam ne woo ko axadun kenn fa qaala mu wax lahu ñeel ko subhaanallah subhaanallah kuriha sibeef na ko wa saxat te wér salaatuhu julleem ga nee na ko xam ne day julli am ku ko woo mu tontu ko ko woo ne ko subhanallah nee na bu boobaa def na lu ñu sib waaye nag ak julleem wér na ah, ok kon mën nanoo yamadi foofu ba beneen yoon dem soob na yàlla